en xam ne na euh, qu'est-ce qui se passe euh, euh, euh, bon hallo ce qui se passe moi, Bougane fekk ni ñi xam ay ay bureau de vote moy tay bi doon voté machallah bon def na discours bo xam c'est à saluer parce que a comme ñu bari sax di Bougane les mm. armes contre mm. président Diomaye premier ministre Ousmane Sonko bon mu def discours bu apaisant ak dal ay bakkanam et tout malgré ça euh, Bougane Gueye Dany boti dans son pro dans son bureau de vote comme niñ ko defee Anta Babacar Ngom Barthélémy Dias Pape Djibril Fall et na Bocoum Bougane Gueye Dany fekk ji ne leen moom mi ñu yaakaaroon ne leen day euh, def day kii day day day sauver honneur bi mais école Cheikh Souleymane Diouf commune de Thiès noor fofu tamit euh, bureau numéro 3 fofu tamit euh, résultat il faut la fa PASTEF 122 voix takk à 13 voix euh, inscrits 579 votants 223 voix Il fa mm.

Bougane mooy tàmbali laay bu laay lan lay wax en fait bu Bougane bu laay ci lan lay wax ci lan lay wax euh, Fallou dèjà fi mu ne nii rek euh, militant parti Pastef ñu ngi commencé di jubiler. parce que boo demee vidéo bi ñu envoyé boo demee fële ca Grand Médine instant bi ni ñi ngi euh, bigoon nee nañ Pastef moo rafle bureau yooyu noonu yëpp bureau de ñi ngi mm. commencé génn. Mm. di di jubiler instant bi nii fi may waxee yow nii mbooloo mu takku na torop torop foofu noonu ca Grand Médine pour ñu génn di. di jubilé. Hmm. alors euh, donc euh, ñu ngi commencé di daal di jubilé euh, par rapport ak li nga xam que modi euh ces premières tendances yi nga xam ne itam gis nañ ko si nga xam que modi élection yi alors ñu dem foofu si daanu Saint-Louis Dakar Bango centre. Euh, école Serigne Babacar Gueye bureau de vote euh, numéro 1 mm, votant en mu aussi 348 Passif en 220 attaque Wallu 84 Sàmm 4 3 euh, bureau de vote numéro 2 votant en mu aussi 359 Passif en 217 Wallu am 104 Sàmm Sa Amnafa 4 Amnafa 18 bureau de vote numéro 3 votant en aussi 343 Passif, amna 209 Takku Wallu fa 83 Sam Sa 7 Jàmm ak amna 22 bureau de vote numéro 4 votant en mi ngi 335 Takku Wallu 45 fa 95 Sàmm Sa fa 6 15 j'ai de vote numéro 5 votant en mi ngi 245 Passif, amna 447 147 takk wàllu am fa 65 amna fa 7 jam amna fa 13 bureau de vote numéro 6 votant yi 245 Passif amna 148 takk wàllu 111 6 am dara bureau de vote numéro 7 Bango votant 277 Passif amna fa 192 takk wàllu fa 54 sàmm amna fa 6 jam njëriñ amna fa 2 de vote numéro 8 votant yi ñu aussi 211 takk Amna 48 sàmm sa kàddu 4 jam ak 4 ñu si euh, école euh, euh, Moussa Ka bureau de vote yi pastif am fa 178 Amadou Amna 8 Mek Amna 46 bureau de vote numéro 2 passif amna fa 163 18 Macky amna 39 bureau de vote numéro 3 Passef amna fa 171 Ba 14 Macky amna bureau de vote numéro 4 passif amna fa 151 Amadou amna 26 Macky amna 38 centre wala kon bureau de vote numéro 5 passif amna fa 167 Amadou Ba 13. Maki am 34 de vote numéro 6 passé am 175 26 Maki am 40 si de vote numéro 7 passé am 149 26 Maki am 25 si de vote numéro 8 passé am 194 am 21 Maki Sall am 23 bureau de vote numéro 9. Maki ah, Sonko amna fa 174 ah, Amadou Ba amna fa 22 Maki amna fa 27 sa bureau de vote numéro 10 Passif am fa 180 Amadou Ba amna fa euh, li nga euh, justement 100 100 100 100 100 9 Macky Amnaf fa 0. ce euh, bureau de vote numéro 11 Passif am 112 Maki euh, na fa 37 Amadou amna fa li nga xam ne 13 donc nak donc mo wacc fofu wàcc foofu euh, sa euh, diwaanuk euh, école Moussa Ka jëmale si nga xamné que modi élection yi ak li nga xamné que modi tolway wi euh sans plus tarder dañuy ñëwaat si ben école par rapport ak cumul yi nak xamna naa comme incha allah ñu def li nga xamné que moo cumul yi mais résultat yi nga xam tam itam jóge na si daanu Kaba Toti bu Pape daoud bitey

le euh, bureau de vote aussi mooy ki n'a xamné nekk modi 129 dim fi ki nga xamné nekk modi di Pastef 20 euh, euh, jëmale si coalition jàmm ak ñëriñ 44 jëm si nga xamné nekk modi tak takk euh looloo fa am ñu dem si beneen aussi bureau de vote bureau de vote numéro 4 je pense bien Pastef am na fa 127 voix donc nak lolu mo gës loolu moo gën exactement euh, si vous avez xam euh, bureau de vote vous euh, avez cette forte hausse Malé, si première tendance pas mort oui, waaw suis la première tendance c'est nañ soviétique parce que vous savez, li nga xam hmm. ni pour le moment Euh, bon jamono ji mën naa ne seen cent soixante cinq députés yi ñoon mm-hmm. wax peut-être mën naa ne soreetu leen ba tax na jamono ji yenn ci ay militants ñi ngi génn di jubilé mm-hmm. euh, pour le moment ni nag euh, Pastef moom jël na raw gàddu gi jël na raw gàddu gi jël na raw gàddu gi bu ma ñëwee fële ne la école fële nga xam se moo di école euh, Grand Médine euh, bureau 14 Pastef am na fa 141 voix Sàmm Sa Kàddu am na 78 bés du ñàkk am 4 euh, Takku Wallu am 3 jàmm ak njëriñ am na fa li nga xam se moo di 2 voix mm. dafa mel ni nag ñi nga dafa mel ni nag gisaguma benn responsable bu bokk ci parti Pastef bu ñu gagné euh, bureau de vote am wala ci centre de vote am euh, boobaak léegi nag gisaguma ko fenn foo xam se ne nii bon euh, benn benn responsable Pastef gagné gum nañ ko centre de wala wala bureau de vote am mm. naam parce que waa sàmm sa kàddu moom ñi nga xam se ne ñoo jiite li nga xam ñooy dirigeants yi ñi nga xam ñoom lañ tàmmoon a gis ci ci ci ci campagne ñoom ñëpp lañ gagné seen bureau de vote ak seen mm. centre de vote mais jusqu'à gisaguma fa mm. koo xamante ne nii moo bokk sàmm moo bokk fële na la ca ci ci ci diwaan ci ci parti Pastef boo xam si ne ni euh, dinañ ko dinañ ko dinañ ko gagné nañ ko euh, Fallou damay ñëw tamit fële na damay ñëw delluwaat fële ci euh, région de Louga arrondissement bu Koki commune bu Thiamène Kayor école de Thiamène bureau numéro un nombre d'électeurs inscrits ñu ngi toll ci cinq cent soixante cinq nombre de votes ñu ngi toll ci deux cent douze fële nag ki nga xamante ne ni moo di parti pastef a fa 99 euh, voix li nga le modi sam 23 voix ki di a ak 49 voix ki di farlo amna 7 voix euh, ki di amna 12 euh, voix ki nga xamne modi soppi senegal amna fa 2 voix ki nga xamne modi coalition GORIBES yu 3 voix and besal senegal amna 1 voix jotali KADO askan am na fa une voix euh, ki nga xam ne Jeff Jelly am na fa une voix euh, foofu moo di nekk bureau numéro un ñu ñëwal si bureau numéro deux bi euh, ba tey ci diwaanu Louga commune Thiamène Kayor foofa tamit ñu ñëwaat ki nga xam ne moo di Pastef am na fa li nga xam si moo toll ci cent deux voix ki nga xam ne moo di euh, takk wàllu am na quinze voix ki nga xam ne moo di jàmm ak njëriñ am na trente sept voix euh, ki nga xam ne moo di euh, sàmm sa kàddu am na fa vingt cinq voix bés du ñàkk am na fa deux voix farlu am na quatre voix. ki nga xamante ni moo euh, euh, euh, coalition and Sénégal zéro voix mm. ki nga AS deux voix commune bureau numéro 3 bureau numéro 3 bi Pastef am mm. voix la coalition jàmm ak njariñ voix coalition sàmm sa voix euh, coalition euh, Takowal Sénégal amne 10 voix euh, coalition Sop Sénégal amne 2 voix fallu bataille ma ñëwaat fofu non ci euh, commune bi encore fi nga xam c'est modi bureau numéro 4 bureau numéro 4 tamit buñ xolé ki nga xam ni modi passef amna fa 124 voix ki nga xamantene ni modi farlu amna fa 6 mm. voix ki nga xam c'est modi coalition Jam ak Njari amna 56 voix ki nga xam modi sam sakado amna 15 voix ki nga xamanteni modi euh, euh bes du ñak amna fa une voix ki nga xamanteni modi euh takku walu Sénégal amna 14 voix ki nga xamne modi euh soppi Sénégal am na fa une voix coalition les nationalistes ñoom zéro voix lañ am euh, loolu moo tukkee résultat yi nga xam se moo nekk ca commune Thiamène Kayor nekk di arrondissement Koki département bu Louga merci beaucoup euh, Babacar Fall ci résultat yi nga xam se ne yónnee ma ko yónnee nga ma ko foofu noonu ca diwaanu Thiamène Kayor Fall. Mm-hmm. alors merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax. Euh, ginnaaw Thiamène yi daal dem foofu si daanu li nga xam ne que moo di euh, Saint-Louis foofu aussi euh, y a une démonstration de force de Pastef foofu si département bu Saint-Louis la mouvance présidentielle moo daal arrivé largement en tête avec benn score bu yaatu l'association bu département bu Saint-Louis nag jamono ji Saint-Louis mi ngi si 2806 Pastef mi ngi si 2806 takk wàllu mi ngi si li nga xam ne que moo di 610 sàmm sa mi ngi si 116 euh, jàmm ak njariñ mini si 64 euh, voix lolou li mën a jàpp ci si li nga xamné que Modi Saint-Louis euh, par rapport ak li nga xamné que moo euh ces résultats yi nga xamné itam waccina na à la dernière minute jëmale si wàllu wu ni mel aussi si wàllu Tivaouane aussi Ousmane Sonko mo fa daal di ñëw en tête donc Pastef a remporté les élections législatives anticipées force si daanaka Tivaouane mu daal di ñëw en tête Pastef ci bureau euh, numéro 2 nous euh, am 292 votants euh, passif am 135 voix diamonirin am 93 takwol am 11 voix bureau numéro 1 les votants nous avons 330 passif am 150 Jàmm am 93 takwol am. 20 euh, voix euh, si bureau numéro 5 bi passif à 51 voix 140 voix 14 voix bureau numéro 11. que euh, école 11 bureau numéro 1 à fois vous passive à 112 voix jàmm njëriñ fa justement 11 voix à deux voix ce commune voulait Pire centre case des Petits la Fofu euh, votant étoile d'un scénario avec 25 passif en et e manière en 97 takk wàllu am fait fa deux si ay voix concrètement alors yéen résultat yi amaat justement euh, ba moi si soir électorale bi. demain damay le soir, waat moom euh, fi ma nekkoon commune Thiamène Kayor euh, bureau numéro 5 foofa mm. tamit Pastef am 117 voix ki nga xam ne coalition sàmm sa am fa li 20 voix diam ak am 16 voix coalition Farlo am 6 voix coalition takku wàllu 4 voix. coalition %e Soppi Séné